Biki Goudi Tibori 3 h Djemele 4 h du matin ci boutique Bi, ñu Maman Daba n'eké ci bi jano ak immeuble Majorel ay Samba Boy daal dinañu fay ñëw agent de sécurité gannaaw bañu hamleni caméra de surveillance yi ci boutique bi dañoo panon waye jot nañu am ay image yu caméra boutique bi ñu dendal dal jël vidéo bi di Samba Boy ndaw bile nak ñu fat bakanam mu ngi wuyoo ci turu Bouya Diawo di liggéey ci agence sénégalaise de sécurité ASS gannaaw ba ñu demee ca boutique boobule mbir mi xewee daldi nañu fay fekk ay policiers ak it enquêteurs ñuy def seeni liggéey ñi sax di ñu xamal ni duñu mën a wax ci bile agression laata enquête bi antu.